Thank <laughs> you. Toujours dans votre acte du jour de ce vendredi 2 février 2024 sur la chaîne des grands événements VIP People TV suñ jógee foofu dañuy dem fii nga carte électorale jëmale ko ci présidentielle du Sénégal en tout cas liñ ci le 25 février sénégalais yi war nañu dem ci urne yi di successeur ou son excellence le président de la république Macky Sall le cinquième président de la république du Sénégal jamono ji daal suñu ci carte électorale bi nga xamante la Sénégal soxal suñu sukkandikoo ci 1214 bureaux yi nga xamanteni tay yokku par rapport ak ci bureau yi ñu jógee ci législative ginnaw bi ci élection législative en 2022, dans le gis nañu carte électorale bi yokk na ci lu tollu bureaux de plus que li ñu jógee woon li nga xamanteni ni ci l'élection législative muy ben administration bo xamanteni tay dafa préféré bi yoon verrouiller lepp lo xamanteni dafa jëm ci carte électorale bi ginnaw opposition ak li nga xamanteni moy société civile ñom ñep dañu dénoncer ay manquement indi ci ben transparence bo xamanteni gis nañ ko ci en tout cas suñu source d'almini mi ngi xamal dal suñu sukkandikoo ci li nga xamanteni sanni nañ ci suñu bët dafa don ben carte électorale bo xamanteni tay pour présidentielle yi ñu jëm lu tollu ci 15633 bureaux de vote ño am fi ci Sénégal fele ci étranger lu 807 bureaux de vote en fa loolu une suñ ko au total dinañu jox lu tollu ci 16410 410 mu augmentation bo xamanteni l'outil lu tollu ci 1214 bureaux yo xamanteni par rapport ak élection législative yi ñu génn en 2022 mu nombre de bureaux de vote dal bo xamanteni tay daf ñu ko xaymoon ci en tout cas liñ ci mëna indi dal moy élection yi ñu jëm ginnaw élection législative yi ñi ngi ci. 15196 bureaux de vote jamono qui ci présidentiel yi dem 16410 bureaux de vote suñ ko xeyma dal gis nañu lu 1214 bureaux de vote yo xamanteni yokku a ci ci en 2022 ak 2024 élections législatives et élections présidentielles.